بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبي إمام مالك رحمة الله عليه ñoo ngi jël siwaat ak yéen ci Muwatta Imaam Malik ñu nekkoon ci jotaay bi passé ci kitaabul kalaam baabu maa yukrahu min al kalaam bunt bi nga xamante ni bii lim fi jàngale moo di li ñu sib ci ay wax wax yoo xam ni sib nañ ko jël bu war koo moytu jëloon nañ ci ñaari xadiis tey ñu jël ñetteelu xadiis ci bunt boobu jitaay bale paase nag xadis bañ jëloon ki ko solo woon saxaab yi bi ko nettali woon moo di abu hurayra radiallahu anhu mu nekkoon nag kéemtaan ci kéemtaan yonent bi salallahu alayhi wa sallam moom abu hurayra ndax mokkal na ci diir bu gàtt lu toll ni juróomi junni xadis ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñeent loolu ci loo xam ni jéggiwul ñeenti at daanaka loolu kon kéemtaanu yàlla la koo xam ni gaarle na ko ci yonent bi saa sallam ci ndongom loolu di abu hurayra radiallahu anhu tey nag ñu continuer ci bunt boobu jël beneen xadis mu ni an malikin jële nañ ci imam malik kan mooy wax yaxya ibn yaxya allayhi moo ni jële na ci sëriñam imam malik mu jële ci abi zinaad mu jële ci al araj mu jële ci abi hurayrata radiallahu anhu mu ne yonent bi salaa sallam wax na ne laa yaqul axadukum yaa xoybata ad-dahr fa inna allaha huwa ad-dahr kenn ci yéen bu mu wax ni woonaa sooyug jamono woonaa pertaange jamono ndax suñ borom yàlla day mooy kiy soppaxndiku mooy kiy dogal liy xew lépp ci jamono xadis boobu nag daañ fekk ca càll la ga imaam malik jële ci sëriñam abu zinaat abu zinaat moobu nag waxtaan bu lee paase ñëwoon nañ ci biographie am waxtaan lenn ci ak dundam donte loolu du woon ab xadiisam nag bi ñuy def dars tey bii lañu gis ne ndekete yoo dañ jaawaat la ci càllale gi dugal ko fa waaye moom foofa du woon palaasam xadiisam kon xadiisu tey bi la waaye ñaar xadiis yëpp nag yu wér lañ moom kon abu zinaat jële ci sëriñam al araj al araj nag mooy boroom laago ga bu nekkee dañ koy fiir ci wolof loolu nag moom lañu wooyee dàkkantal ci arab yi laqab bu nekkee noonu lañ koy waxee ci wolof arab nag si wax dàkkantal mooy loo xam ni mën nañ caa dégg aw tagg wala ñu dégg ci aw ŋàññi kon dàkkantal wi ak ŋàññi li gën a jege boroom laago gi loolu ndax dana dagan ñu ni du dagan mukk lu dul ne boroom def cee siiwa siiw ba xamewuñ ko lu dul loolu comme al araj mi dàkkantal yu moo gën a siiw sax tur wi foo waxee al araj daal ci ñi yëngu ci xadis ñu xam mooy kan waaye boo ne abdurahman ibnu hormuz ñu bari daañu réer ndax miinuñu tur wi lañ miin moo di dàkkantal wa waaye tamit dàkkantal bunt la boo xam ne bu yaatu la ci lislaam nag salaa salaam dàkkantal na ay nit yu bare abu bakar as siddiq loolu ñu naw dàkkantal la omar al faruq ñu naw dàkkantal la uthman dunnurayn ñu ne loolu tamit dàkkantal la ak yeneen ak yeneen yu bari ñëw ci bunt boobu kon al araj moo di abdurahman ibnu hurmuz moom nag bokk na ci ay sëriñam abu hurayra mi nga xamante ni bii moom lay nettlib xadiisam ak abu saidin al xudri ak ñeneen ci saxaaba yi bokk na ci ay ndongam moom al araj abdurahman ibnu hurmuz imaamu zuhri imaam bi nga xamante ni bii ah li mu liggéey ci sunna si yonent bi salaa sallam liggéey bu rëy la du ñàkk mën na am daan ci ñëw bokk na ci ay ndongoom imam malik imam malik borom téere bi di al muwatta kon ci ndongay al araj la bokk moom imam malik waaye al araj bokk na ci ay jalooreem mooy téere yi téere yi gën a siiw ci lislaam boo ci dem fekk fa turam fekk fa mu ne fa sëriñ dafa nettali ay xadiis ñiy wax ni xadiisam baax na mënees na koo jël mënees na koo jëfandikoo te loolu kum xas ba am ci yow mooy ba kere yowmal qiyaam saw tur du fay kon yàlla na ko suñ borom yàlla yërëm te gërëm ko ñaan googu dana ci am ay million yi million yi million ndax ñiy jàng xam-xam di jaar ci téere yooyu bari nañu lool te fuñ fa jaare ñaare sànni ko ñaan kon buñ ne rawaalahul jamaa mbooloo mi wala bokk rawaalahu sitta borom juróom benn téere yi gën a siiw génn nañ xadiisam ah mooy kooka moom dugg na ci wa rafaana laka dikrak suñ borom yàlla yëkkati na aw turam yëkkati na ko ba mu siiw lool ci àdduna al araj bokk na ci liñ nett li ci moom ñu ne moom day mooy awwala man wada al arabiya mooy ki jëkk a teg lii di làngu arab ay règle mu teg ko moom du arab waaye bokk na ci ñi ñi jëkk ñi jëkk a wax nañ def ay règle ci lii di làngu arab nuñ koy làkke bokk na tamit ci ñi gën a dégg lii di mbirum nasab te moo di xeetu Quraysh seen giir gu bari googu nga xamante ni bii dafa fasanti koo bari lool ay xeet ñu naan ñii ñooy Abdu Shams ñu ni ñii ñooy Hashim ñii ñooy banu Abdul Muttalib ñii ñooy banu Adi fii Seydina Omar bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu bari moom xamoon na leen man leen tàqatle ndax loolu ab xam-xam boppam la boo xam ni imaamu Shafii moo nekkoon imaamu buntu boobu ñu wax ne tamit lool di làngu arab al araj moo ngi ko jële ci abul aswad addiili yi abul aswad moomu nag siiw na lool ci ni moom dañ koo digaloon ñu wax ni imaam ali moo ko digaloon ni ko na fexe ba réglementé lii di làngu arab muy dox ci ay norme dox ci ay règle bañeem rek ci làkk bi waaye ñu fexe ba mu am ay règle yoo xam ni moo koy dëgëral accompagner ko kii di al araj moo génn àdduna atum téeméer ak fukk ak juróom-ñaar 117 imaamu dahabi nee na wa adunnuhu jaawaza thamanin nee na ragal naa ni romb na juróom-ñett fukki at imaamu dahabi kon loolu la wax nee na nekk na mag jàpp naa ni sax ay atam romb na juróom-ñett fukk abu hurayra tamit moom tamit lii di waxtaan ci moom paase woon na ca jataay bale paase waxoon nañ ci lii di biographie am bu ñëwee ci baat yi nag yaa xoybata dahr woo naa sooyut jamono mooy jamono perte na jamono xañ nañ ko mbir loolu nag arab yi ñoo ko doon wax dana ñëw ci kanam insha allahu fa inna allaha huwa dahr suñ borom yàlla moo di jamono waaw loolu luñ koy déggee ñu ni mooy ki nga xamante ni bii li xew ci jamono lépp ci xam-xamam lay jaar ak dogalam xam na ko bind na ko bu heure ba jotee mu am kon jamono defu ca dara moom defu ca dara waaye suñ borom yàlla huwa dahr moom mooy kay def moom mooy soppaxndiku mbir yi yusarrifu l amr wala yudabbiru l amr comme nu ñëw ci alquranul karim mbir yépp moom moo koy doxal di ko soppaxndiku waxoon na ne wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha nee na ba ci xobu garab xobu garab yi niñ baree ci àdduna nee na xob wu ci wadd sax xam na ko bindan na ko fi kitaabi mubin tey kon kooku mooy borom jamono lépp lu fi am moom ci contrôlam ci ndigalam ci la ko ci la amee moom suñ borom yàlla subhanahu wa taala léegi bu ñëwee nag ci shara xadis bi kenn ci yéen bu mu wax ni jamono perte na jamono sànku na ndax sun borom yàlla moom mooy soppax niku ci jamono ji loolu danañu jàngal ñu jàng masala bu am solo te moo di nit ki wax ci jamono wala boog sax mu ŋàññi ko ŋàññi jamono wax ni jamono moo def nangam ak nangam lan mooy àttam ci lislaam ak am solo ñu xam ko foofu mën nañ faa jële ñetti àtte yoo xam ni benn bokk ci ak moroom ja kon suñu journée yi ñu xëy di nekk muy tàng di sedd di naaj lu ci nekk rek ndekete yow bu ca jullit bay wax na xam ne ñetti àttee ngi nii benn mu wax loo xam ni mën na ko yóbbe kéefar wala mu wax loo xam ni nee nañ araam na wala mu wax loo xam ne lislaam nee na loolu de dara nekku ci est-ce que xam nañ loolu loolu war nañ ko bàyyi xel lu jar a bàyyi xel la xam ni daal journée bi nga nekk moo xam tàng na wala sedd na ak nu jawwu jamono mel maanaam environnement bi nu mel boo tey wax xamal ni am na àtte bu taxaw sa kanam ñetti àtte bu la neexee nga jàng mbir mi danga ci mën a génn ba def loo xam ne lislaam du la condamné du la wax ni jóom nga soo ko jàngut laajte woo ko mën ngaa dugg ci loo xam ne dañ naa la lii de araam na nga def ko moom waroo ko woon wax lii de araam na nga wax ko ndax sax ci buntu wax lañ nekk wala nga wax loo xam ni dañ naa la ah lii de kenn waru ko wax lii de ku ko wax te gëm ko mën na la yóbbee ci kéefar kon mbir mi nekkate dul ndaw lu ñuy wax ne mën na tax jullit bi delluwaat ci kéefar ah loola loolu jara moytu la kon àtte ba ci jëkk moo di mbir moo xam ni dara nekku ca lislaam nee na dagan na loolu moo di lan mooy nit ki di nett li li xew ci jamono jim nekk ah tey de moom tàng na moom tey tàngaay bi sonal nañu de tey sedd na ak yu mel noona yooya lu ca nit ki wax rek lu dagan la dara nekku ca lislaam du ko ca jàppee dara ndax lan loolu mooy li am te moom dafay nett li rek li am tey waaw mu mel ni dañ ko doon laaj tey zone bi nu mel mu ne tàng na kon moom day nett li li am day nett li rek loolu ñëw na ci alquranul karim lu koy dëgëral lu koy firndeel seydina Luut alayhi salaam waxoon na ca ganam ña ba ñëwee ca dëkk ba di ko laajte mu gis leen ni ay doxandéem lañu waaye ay xale lañ tamit duñu ay màgget ak dëkkam niñ meloon ci ngóor jigéen mbir matis ci moom xamagul lu ñuy dox mu ni haada yawmun asib bis bu jafee ngi ni ci man nan lay def ba ñi mucc ci waa dëkk bi nan lay def ba muccal sama gan ñii ba gàcce duma dal ci ñoom keroog njàqare wër na ko fu ne fan lay rawalee ganam ñi mu ni haada yawmun asib bis bu jafee ngi ni ci man kon loola boo ko seetloo da nga gis ni wax na fa li xew ci bis bi waaye lislaam jàppewut ni wax na fa lu jaaduwut wala wax na fa bàkkaar waaye dafa nettali rek moom li muy dund moom bisu tey bii daal metti na ci man suba mën naa ñëw woyof waaw lépp ci dogal yàlla nag waaye moom day nettali rek bisu tey li ci xew kon loolu mooy bu njëkk bi loolu dagan na ñaareelu atte bi mooy loo xam ne ku ko def ah mën na laa yóbbee kéefar nag te moo di nit ki jàpp ni jamono ci boppam moom mooy soppaxndiku moom waaw jamono mooy soppaxndiku bisu tey bi day bis bu tàng la lu tax mu tàng nga ne ah jamono noonu la mel jamono moom day tàng ak di sedd waaye nag dangaa jàpp ni jamono ci boppam moom mooy defal boppam loolu te yàlla suñ borom loxoom nekkul ci mbir yi waaw loxoom nekku ca bu neexee jamono mu tàng bu ko neexee mu sedd lu ko neex mën na koo def génn ci karton suñ borom yàlla loolu ko ko def dafa mel ni nee nga am na beneen yàlla bu fi nekk di def li yàllay def ndax loolu jëf yàlla la waaw ñu ni kon loolu ku ko def yaa ngi def bàkkaar bu mag a mag a mag ndax jamono ji yépp àdduna yépp benn buur la am muy suñ borom yàlla muy soppax ndiku mbir yi rawatina lu jëm ci jawwu jekk yu mel noona li xew ci journée bi ñetteelu atte bi mooy ku jàpp ni lépp lu am ci jamono nag suñ borom yàlla moo ko dogal loolu damu ci jafe-jafe moom waaye nag nee na daal lii ko dal ci bisu tey bi moom wax dëgg yàlla jamono moo ko teg nag waaw jamonoy tey ji daal moom teg na ma musiba bisu tey bi moom ak a neexoon jant bi bañ a fenk sax li ma ci dal ni mettee kon kooka dafa mel ni ah sun borom yàlla moom lay bëgg a far tuumaal nag donte jaar na ko ci jamono waaw jaar na ko ci jamono de waaye yàlla lay tuumaal ndax lépp lu xew yàlla moo ko dogal kon la jaadu rek mooy mu teg mbir ya ca loxol suñu borom yàlla te ñaan mu def lépp lu mu dogal ci moom mu nekk lu gën comme ni ko salaa salaam doon ñaane lépp lu mu dogal ci moom mu nekk la gën te moom mën naa am sax ñetteelu xaaj bi moom la ñenn ci waxkat yi di wax ni alhamdulillahi alladi la yaxmadu ala makruhin siwaa maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni bii kenn du ko kenn du sant kenn ci aw naqar lu dul moom ñi teg ndaw naqar nga sant ka la teg naqar wa ñu ne loola suñu borom yàlla rek moo ko moom lu tax loola nit ki da cay daw wax ca loo xam ni dana ca far jële bàkkaar te du tax nattu ba teggeeku kon daal ñetti xaaj yooyu yu jara bàyyi xel la xaaj ba ca dagan rek moo jara xam nag te moo di nett li li xew ci journée bi xabaare xabaare nett li xew ci journée bi boobu moom dagan na beneen bu dul boobu nag nañ xam ni lislaam daf koy tere kon hadis bi lim ñuy jàngal moo di ñi nga xamante ni bii ñoo doon dund ca jaahiliya mooy avant lislaam di ñëw nuñ doon doxal ak jamono su jamono neexee ñu tàgg ko bu naqaree ñu saaga ko ñoom de loolu lañ doon def wala ñu rëbb ko laana allahu zaman dañ ko daan wax yàlla na yàlla rëbb jamono ji kon gis nga yàlla na yàlla rëbb jamono ji nga xamante ni bii nangam ak nangam dalan na ma ca kon ñoom dañu yeggoon sax ñoom ci di rëbb jamono ñoom yemuñu ci di ko ŋàññi waaye dañ ko doon ŋàññi di ko saaga di ko rëbb loolu mooy jaahiliya ñi nga xamante ni bii xamuñu woon lan mooy lislaam ak àtte yooyu moo tax boo dee la ci seen woykat ya léeg ñu naan yaa dëxru nàngam yow jamono defal nàngam ak nàngam wala yow jamono mi def ci man nàngam ak nàngam kon loola lépp jullit bi su koy jàng na xam ni lislaam effacé na ko wax na ni kenn waru koo def wax na ni jaaduwut wax na ni jullit du doxalee noonu kon ñoom seen jamono loolu amoon na te moo di lislaam ñëwagut ñu ne ci seenu réer lu nañu dugg ca ba yegg ci di rëbb jamono ak di ko saaga ak di ko ŋàññi waaye lislaam nee na déedéet yow jullit moom bul def loolu ndax jamono kat li ci am lépp suñ borom yàlla moo koy dogal buñ àdduna waree tukki sax du jamono mooy jékki-jékki effacé waaye suñu borom yàlla mooy joxe ndigal àdduna dal di tukki kon xam naa incha allahu dañuy taxaw ci hadis boobu ba jotaay bi di ñëw wasalaamu aleykum wa rahmatullah